One, tous vos corps, à frappez la marafons. Le lion rouge a rougi, le gang de la brousse. Le bas des la D'ici les ténèbres, soleil sur notre espoir. Soleil sur notre espoir. Que vous faites, voici l'Afrique rassemblée. Primeira mon cœur bat, et pour le contrepoint, pas plus que frères sénégalais debout. Unis sur la mer et les sources, a sur la terre et la forêt. Salut Africa! Pakistan! 那边来。

ñii gis lii mënuñu faa nekk Sénégal am ay Macron bu taxaw am ay quarante mesures mun baa de la population muy quatorze millions de personnes pour ñu am terrain mètre carré problème la doon bu mel nii kenn ku yàpp ne lii muy def ne Sonko la koy def ba tax na tëj sa gémmiñ na nopp suba ak ginnaaw suba dina la coûter cher trop trop trop dina la coûter cher man na ñi may gën a woo mooy ñi nga xam ne ay jeunes la ay ndaw ngeen Libere! Libere! Libere! No como con los nafes. No como con los nafes. Tengan, tengan nafes. Ya, ya, compran nafes. léegi baal ma oo ngay soog waxoon nga. yàgg nañ ko xeex te ba léegi day wéy. Eh, waxoon ma def ko réew mënul naan askan mënul. Euh, amul ah kon léegi léegi ah. waaw. coow li yëpp fi la nekk il faut que les gens dellu si ñu ne lii dafay jeex. képp koo xam ne ne am nga compétence bi mën nga ko am nga xam-xam mën nga ñu jiite nga ñëw def li soobu takk sa si di boobaa askan bi dañu taxaw sa ginnaaw jàpp